li nga xamante ne moom lañ gis mooy plus que ñoom ñuy seetaan film yu ni mel ci semaine bi dañuy gis que seen parti bi nekk ci seen bopp bi muy wër ci turu stariatum mu nekk benn makkaan bu ruqe boo xamante ne dafa nekk ci biir yuuru doomu aadama dafay wàññeeku c'est-à-dire volume bi mu am bu fekkoon nii la tollu dafay gën a wàññeeku ci le fait que ñuy seetaan film yooyu bu fekkee ne nag dafa nekk koo xamante ne daf koy seetaan ci ay vidéo du dem pour wuti ko peut-être ci soxnaam déedéet mais li ko gën a jege rek moo di téléphone am dafay yëkkati téléphone am directement seetaan ay vidéo dafa am ay dopamine yoo xamante ne suñ borom daf ko def ci doomu aadama bi bien sûr dopamine yooyu noonu ñooy réagir mais fii attention dopamine yi buy réagir dafay réagir par rapport ak possibilité bi nga xamante ne moom nga ko c'est-à-dire ki nga xamante dafa am soxna bu demee ba yëg loolu dafay dem directement ci soxnaam mais aussi ki nga xamante ne amul lu dul téléphone am di ko seetaan bu demee ba réaction am du def lenn lu dul jubali directement téléphone am parce que bien sur mooy moyen boo xamante ne moo gën a jàppandi ci moom rax ci doolu aussi amul facture boo xamante ne moo la ci sonal ou bien sax wala ay waxtaan wala neexal sa téléphone la yaa ko moom da ngay tàppe rek yegg si ci je ne suis pas ici pour des kenn wala di wax kenn mu arrêté di ko seetaan pas du tout nekkuma fi pour di def jugement mais seulement pour di présenter risque yi nga xamante ne moo ci nekk une fois que nit dem ba mënatu ko bàyyi ci surconsommation bu ëpp bi nga xamante ne daf koy def bien sûr am na ci ay risque yoo xamante ne mën na dal nit ki ci biir cerveau am na ci yeneen risque yoo xamante ne mën na koo dal ba sax muy lor ki nga xamante ne moom lay sëyal beneen beneen bi ci gën a garaaw nag muy am na ci ay risques yoo xamante ne sax mën na dem ba dal ko ci wàllum wërgu yaramam donc ici on parle des choses sérieuses pour nag YouTube bañ a am benn problème ak man ci continue bi am na ci yenn xeetu terme yoo xamante ne duma ko utiliser mais nag ci explication yi dinaa fexe ba nga comprendre mu nekk explication boo xamante ne nag dafay tegu ci yar ak teggin bala may commencer di développer j'aimerais faire benn histoire

ay statut yoo xamante ne dañ koy mën a tabax buñ ko tabaxee nag dañ koy tabax ci méthode boo xamante ne boo ko gisee li nga xamante ne moom lay refléter rek mooy action yi nga xamante ne moom la ñuy def ci vidéo yi bu ñu arriéré ci ñaari junne ak juróomi téeméeri at c'est-à-dire deux mille cinq cents bu ñu demee ci réew mi di Inde dañ doon def ay statues ak ay dessins yoo xamante ne góor ak jigéen yuy seq lañ doon dessiner di ko def ci makkaan yi nga xamante ne ay lieux de culte la c'est-à-dire makkaan yi ñuy jaamoo seeni borom bu ñu arriéré itamit ci réewum Chine ci dynastie bii di wuyoo ci turu kin am na ay livres ak ay dessins yoo xamante ne daf doon surk bousculer bien sûr ñu ciy dessiner ay jeunes hommes ak jeunes femmes yo xamantene dañuy nek ci ay moments yo xamantene yu sérieux la buñu démé ci grec yi ak romain yi aussi bàyyi nañ fa ay statues ak ay dessins yo xamantene toujours toujours fay refléter le même phénomène bien sûr dig me poser ben question muy lan mo waral lég lég ñuy dessiner phénomène yooyu nonu diko duggal ci màkkaan ñi jaamu seeni borom peut-être bu fekkee né yaangi Italie France Allemagne wala sax ci réewu Europe yi léegi-léegi di nga romb ay dessin yoo xamante ne ni ñuy dessiner nit ki du am benn taraxlaay boo xamante ne dañ koy teg ci kawam c'est-à-dire da nga koy gis jëxërën gis cër yi aussi muy feeñ bu njëkkoon dañ ko doon def ngir di réclamer li nga xamante ne moo di wàllum fertilité c'est-à-dire bu fekkoon ne nawet dafay waaj a yegg si wala ñu bëgg a bay wala peut-être ñuy préparer ay xare wala yu ni bu fekkee dañu bëgg a am chance dañuy def xeetu dessin yu ni am ci yeneen yoo xamante ne nag dañ koy def mu nekk yu particulière pour rek mën am chance ci li nga xamantene dañ koy waja song. 2500 ans laa la wax donc ci jamono joju fekk ko diine chrétien commencé di tasaaru bi nga xamantene christianisme mi ngi commencé di tasaaroo phénomène bi dafa commencé di wàññeeku parce que buñu démé ci yi nga xamantene mo nek ci seeni téere dañuy ay phénomène bu ni mel waaye nag bi nga xamantene ne arrière nañ ba ci jamono yi renaissance tanaka mën dafa continue encore une fois di exploser wu moo xam dessin yi moo xam statue ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne dañ koy def pour seulement di gën a promouvoir histoire bi nag dama ko résumé mais nag bi nga xamante ne deuxième guerre mondiale passé na bien sûr ba ñu yegg si ci année mille neuf cent soixante photo commencé di exploser vidéo commencé di exploser ba ci ni nga xamante ne noonu la internet yegsee tey ci jamono ji nekk na phénomène boo xamante ne ay milliards yu dul jeex moo ciy génn am ci ñoo xamante ne sax dañ leen di tudd ay star mu nekk benn phénomène boo xamante ne nag mu ngi get ay gone nekkul seulement extérieur mais dafay yegg ba ci réew mi nga xamantene modi Sénégal consommation film yu ni mel je sais xam nga fi may waxee mën na jural doomu adama bi ay jafé jafé mais nak bien sûr consommation excessive c'est-à-dire ki nga xamantene daf koy seetaan lu jéggi dayo mën na ko jural ay problème ci câblage neuronal bo déggee câblage neuronal nak sumul ko gënee simplifier muy boy tabax kër da ngay wo électricien bi mu défal la branchement électrique c'est-à-dire dougal fil dougal contact bu ci nekk mu def ko fi mu war a nekk bu fekkee que vous avez setan lu ëpp ci vidéo yu ni mel day melni par exemple ñu ne la yow 500 kW nga wara utiliser ci sa kër au lieu de 500 mu utiliser 2000 wala 3000 kW bien sûr limité rek moy fil yi da fay ta amna nu muy démé sax safara lay daal di tàkk. lii nag explication la pour nga comprendre neurones yi nga xamante ne moo nekk aussi ci bopp doomu aadama dafa am loo xamante ne moom lay laaj am foo xamante ne aussi foofu la ay capacité yam bu fekkee ne daf ko ëppal rek bien sûr mën na jur ay danger yoo xamante ne. yu la pour nous comprendre ban danger lay def ci bop doomu adama c'est-à-dire ci bir cerveau dama lay présenter les parties du cerveau c'est-à-dire partie yi nga xamantene mo moo composé cerveau doomu adama bu fekkee ne ñëw nañ ci cerveau doomu adama bu ñu ñëwee ci digg bi fii mooy wuyoo ci turu pariétal lépp loo xamante ne dafa jëm ci wàllu mettit c'est-à-dire bu fekkee nit ki boppam day metti wala tànkam di metti wala mu dagg wala am sax lu koy metti wala bépp yëg-yëg boo xamante ne daf koy yëg ci boppam partie bi nga xamante ne mooy commandé ci cerveau bi bien sûr moy partie bobu ci digg bi lepp lu jëm ci walu compréhension et interprétation de l'information c'est-à-dire me expliquer la nga comprendre rax ci li aussi meuna jangat li me expliquer lu ci mel ni nga meuna reconnaître nit mbir dimension bi mu tollu ban melo la am dafa bleu dafa jaune dafa verte dafa rouge wala benen couleur batay aussi yooyu noonu yépp mi ngi fonctionner ci bobu partie bu fekke da nga genn sa kër bëgg dem marché wala nga bëgg dem école wala nga bëgg dem doxi say soxla bien sûr xam nga fi nga jëm est-ce que mën nga ko dox ak tank wala da ngay jël auto wala da ngay jël saret wala sax da ngay jël avion ba tey itamit partie boobu noonu mooy calculer distance bi nga xamantene ne moo dox sa diggante ak destination bi nga war a dem bu fekkee les séries S lu jëm ci wàllu mathématiques science ak physique ak yu demee noonu partie bi nga xamante ne moo koy liggéey ci bopp doomu aadama bien sûr ñu gën koo miin ci tur bi nga xamante ne moo di pariétal mooy ci digg bi bu fekkee ne ci ndong li ci ginnaaw fii moom la ñuy tuddee ci tur bi nii di occipital boobu mooy fonctionner ci li nga xamante ne da nga koy gis rax ci dolli aussi naka ngay interpréter maanaam li nga gis naka nga koy jàngatee nii la mel dafa jege dafa sori dafa rëy wala dafa tuuti parti boobu mooy ki nga parti bi nga xamante ne moo koy liggéey bu fekkee ci suufu ndodd li nii mooy wuyoo ci turu cervelette parti boobu noonu mooy dox bu fekkee ne peut-être da ngay dox wala da ngay daw parti boobu moo lay téye nga mën a équilibre mooy waral léeg-léeg bu fekkee ne nit ki dafay miir parti boobu noonu du ni mu war a fonctionner dëgg-dëgg du ko fonctionner dans ce dafay xel di def nii c'est-à-dire du xam fu mu nekk cest à

Manam tronc cérébral lepp lo xamantene de dafa jëm ci respiration manam bu nit ki di régulation de la fréquence cardiaque c'est-à-dire pëf pëf yi xolu doomu aadama bi di def ak yeneen yo xamantene dafa jëm ci walu li fonctionnel yaram bi Parti bobu mo koy liggéey bu fekkee ne parti bi nga xamantene jebini moo nekk ci suufu jëbi waxuma jëbi ci ci ci di temporale loolu moy régler capacité de comprendre les langues c'est-à-dire bu féké da ngay jang chinois séeréer tukulóor wala benen langue partie bobu noonu moy xel di fonctionner pour nous mën ko mémoriser Lég lég aussi ngay fàttaliku ko bima nekkee gone bi ma tollee nangam bima ma nangam Batay aussi partie bobu noonu moy conserver yoy noonu information Lég lég aussi mu koy génne nga mën diko le lépp loo xamante dafa comportement wala cest c'est-à-dire émotion ba aussi partie boobu mooy agir partie bi nga xamante ne la bien sûr le front moom la ñu gën a ci tur bi nga xamante ne moo di frontal lépp loo xamante ne dafa jëm ci wàllu personnalité nit ki partie boobu mooy gérer mais aussi lépp loo xamante ne dafa jëm ci wàllum émotion mais aussi excitation c'est-à-dire yëg-yëg bi nga xamante ne nit ki daf koy daf koy am mais bëgg-bëgg bi nga xamante ne aussi nit ki daf koy am su ma nee bëgg-bëgg nag c'est-à-dire mooy bëgg-bëgg bi nit ki di am c'est-à-dire góor bëgg-bëgg bi muy am pour war a jaxasoo ak jigéen wala bëgg-bëgg bi nga xamante ne aussi jigéen daf koy am pour jaxasoo ak góor loo xam ne dafa jëm ci wàllum intelligence c'est-à-dire yow nit ki lépp loo xamante ne dafa jëm ci wàllum concentration xalaat réfléchir naka lay jëlee ay décision ba aussi parti boobu mooy agir mouvement yi nga xamante ne ce sont des mouvements volontaires c'est-à-dire am na ci ay mouvement yoo xamante ne involontaire la c'est-à-dire bu fekkee da nga yëkkati sa loxo teg ko ci xal mouvement boobu ngay def loolu lu involontaire la c'est-à-dire nekkul ne yow yaa ko sàkku waaye nag bu fekkee ab tukulóor moo yëkkati loxoom teg ko ci mburu loolu mouvement bu volontaire la maanaam moom ci boppam moo ko sàkku ba tey aussi partie frontale bi moy agir capacité de parler et d'écrire c'est-à-dire capacité bi nit pour mën mais aussi pour aussi bind aussi partie frontale bobu agir légui nak bu fekké ni nit ki def surconsommation c'est-à-dire ci seetaan bi nga xamante ne dafa koy seetaan xeetu film yi ni mel yooyu noonu film dafay jur ay conséquences yoo xamante ne yu garaaw la ci partie bi ma la mujjee limal bien sûr muy partie frontale bi du ci yem aussi su ma ci paree dinaa la wax ay preuves en même temps aussi li ma lay wax yëpp mu ngi ci description vidéo bi muy activité yi nga xamante ne cerveau bi daf koy def c'est-à-dire yoo xamante ne yu rapide lay doon bu fekkee nit ki aussi dafay def surconsommation boobu noonu gaawaay daanaka dafay dem ba day mujj yéex. ci benn étude boo xamante ne ñi ngi ko publier ci journal of the American Medical Association. psychiatrie ci benn étude boo xamante ni bien sûr boole woon nañ ci Simone Cohen ñu tànn ci lu toll ci 64 hommes yoo xamante ne ñi ngi en bonne santé am ci lu toll ci vingt ans jàpp ans dañ leen a woo di leen poser ay questions ci ay mbir yoo xamante ne yu passé la en même temps aussi ñu seetaan loo leen xeetu film yooyu ñu wax leen ñuy seetaan film yi ci lu toll ci 4 heures de temps c'est-à-dire ñenti waxtu ci semaine bi Ginaaw lolu aussi amna ci ay machine yo xam def nañ ko seen bop bi pour di def ay scanner pour mën comprendre est-ce que amu ci ay volume yo xamantene da fay wàññeeku wala amna ay réaction yo xamantene daf leen di dal bu fekkee né dañuy consommer film yu ñu mel li nga xamantene mom lañ gis moy plus que ñom ñuy sétane film yu ñu mel ci semaine bi dañuy gis que seen parti bi nekk ci seen bopp bi muy wër ci turu Tariyatum mu nekk benn makkaan bu ruqe boo xamante ne dafa nekk ci biir yuuru doomu aadama dafay wàññeeku c'est-à-dire volume bi mu am bu fekkoon nii la toll dafay gën a wàññeeku ci le fait que ñuy seetaan film yooyu. bi may commencer expliquer naa la cortex frontal bi ñi def études dañoo gis aussi que plus que ñuy seetaan vidéo bi partie cerveau bi nga xamante ne moo di striatum ak partie bi nga xamante ne mooy jël ci wàllu eh, partie front bi bien sûr muy partie yi nga xamante ne mooy jëm ci wàllu excitation wala comportement am na ci ay yàqu-yàqu yoo xamante ne mi ngi am ci seen diggante léegi nag fii li ciy danger mooy bu fekkee ne nit ki striatum bi ma la wax dafa tuuti loolu mën na waral je dis bien mën na waral nit ki di am

ay vidéo léegi dama ne ne bu fekkee ne daf koy seetaan dafay gën a tuuti buy gën a tuuti mën na ko pousser pour mu dem di ko seetaan cest à dafay nekk benn cercle boo xamante ne pour mu mën faa génn dafay nekk loo xamante ne lu jafe lay doon loolu nag une fois que muy gën a continuer di gën a continuer dafay dem ba jural ko lu ñuy tuddee dépendance maanaam day dem ba nekk loo xamante ne daf lay tënk mënatoo ko bàyyi nu ñu mën a def nu ñu pour dem wuti ko wala nga xamantene dañuy consommer cigarette bu ñu xëyee wala ñu añ ba noppi dóoruñu benn sañ bopp yi duñu nekk bu fekkee aussi nit ki dafay def surconsommation ci wàllu film yooyu mën na dem ba gën ko pousser ba mu yegg ci phase bi nga xamante ne moom la ñuy tuddee phase dépendance. bu ñu arriéré ci atum 2018 ci benn enquête boo xamante ne def nañ ko wax nañ ni ci at moomu lu ëpp 35 virgule 5 milliards de visiteurs dugg nañ ci ay sites. seulement pour seetaan vidéo yu fii nag di ma baal tuuti parce que dinaa wax yoo xamante ne dafay gën a sérieux muy nit ki bu fekkee ne daf koy seetaan ba dem ba ëppal ci ba mu jéggi dayo mën na dem sax ba yóbbu góor gi bu fekkee ne par exemple dafa war a jaxasoo ak nit réellement li nga xamante ne moo war a yeewu ci moom pour mu mën a jëflanteem ak partenaire am loolu mën na dem ba dootul mën a yeewooti cest à day mel nii lu faatu wala sax bu fekkee ne dafay seq bien sûr fii nag góor laay waxal waxuma ak jigéen bu fekkee ne dafay seq góor ak jigéen am na loo xamante ne moo war a génn ci moom mu nekk am ndox am na nu mu koy seetaanee dafay dem ba pour ndox moomu génn day nekk problème parce que bu fekkee ni nit ki daf koy seetaan te saa koy seetaan day dem ba yéeg boppam ndox génn ci moom nañu imaginer koo xam ne daf koy seetaan lu cinq fois ci jour bi kooku li muy génn ci ndox dafay dem ba bu fekkee ne dafay séq ak nit réellement pour mu génne day nekk problème wala sax buy génne day génne quantité boo xamante ne bu tuuti la mais aussi bu fekkee dafay génne aussi peut-être quantité bu tuuti mais nag bu fekkee ne quantité bu tuuti boo xamante ne ferñeent yi ci war a nekk du ci nekk. ba mu la ko gënee wolofal rek muy kaasu ataaya ma defal la ci soow ne la njar ko. nga ñëw andi siwo ndox sotti ko ci kaasu ataaya bi ne danga koy njar dans ce cas lii dafay causer problème. beneen bi nga xamante ne ci topp. ci ni suñ borom programme cerveau doomu aadama bu fekkee nit ki dafa am yëg-yëg ngir war a jaxasoo ak jigéen dafa am ay dopamine yoo xamante ne suñ borom daf ko def ci doomu aadama bi bien sûr dopamine yooyu noonu ñooy réagir mais fii attention dopamine yi buy réagir dafay réagir par rapport ak possibilité bi nga xamante ne moom nga ko tàmmal c'est-à-dire ki nga xamante ne dafa am soxna bu demee ba yëg loolu dafay dem directement ci soxnaam mais aussi ki nga xamante ne amul lu dul téléphone am di ko seetaan bu demee ba réaction am du def lenn lu dul jubali directement téléphone am parce que bien sur mooy moyen boo xamante ne moo gën a jàppandi ci moom rax ci doolu aussi amul facture boo xamante ne moo la ci sonal ou bien sax wala ay waxtaan wala neexal sa téléphone la yaa ko moom da ngay tàppe rek yegg si ci. léegi fii nag lan moo ji problème muy bu fekkee ne danga dem nit dafa dem ba tàmmal xelam que ni bu demee ba yëg ko li nga xamante ne moo ko mën a satisfaire mooy vidéo yooyu noonu. dans ce cas là même sax bu fekkee ne am na soxna soxna si mën na koo bañ a satisfaire. parce que li nga xamante ne moom la tàmmal xelam muy pour mu am li mu bëgg faw mu dem utiliser téléphone am wala ordinateur am pour mën a jot ci vidéo yu ni mel fi may tëjee vidéo bi nag mooy l'effet de neurone miroir dafa nekk benn effet boo xamante ne doomu aadama bi daf koy def bien sûr dafa wuyoo turam nag muy miroir c'est-à-dire ni muy comporté woo mooy ni nga xamante ne noonu leen nit ki tàmmoo di comporté woo naturellement c'est-à-dire nit ki buy seetaan film yi léeg-léeg day gis ay action yoo xamante ne yu ñaaw la action yoo xamante ne daanaka mën naa ne animaux yi sax duñu ko def bu fekkee ne nag bien sur dafa tàmmal loolu noonu xelam xel mi aussi dem ba enregistré ko mu nekk benn action de miroir bu demee aussi ba jàkkaarloo ak partenaire réelam pour mu mën am satisfaction li tamal xelam mom lay bëgg am bu fekkee ne nag day metti ci soxna si wala soxna si nangoo ko dans ce cas là fofu noonu problème def am parce que région yi nga xamante ne moo nekk ci cerveau yi wala mu gën ko wolofal pàcc yi nga xamante ne moo nekk ci xelu doomu aadama ni nga xamante ne noonu lay réagir bu fekkee ne nit ki day seetaan vidéo yu ni mel c'est la même chose aussi que noonu lay réagir bu fekkee ne nit ki dafay séq ak partenaire boo xamante ne bu réel la donc bu fekkee ne ni sa cerveau di réagir dafa nekk réaction bu soxor ci nit ki bokoy koy seetaan bu demee ba ñu jox ko soxna aussi day bëgg a def la même chose léeg-léeg day metti ci ndaw si fi may tëjee vidéo bi nag muy ci xelum doomu aadama bu fekkee nit ki dafa seeta tàmm di seetaan film yooyu bu fekkee day commencé day soog a commencé bien sur day seetaan yoo xamante ne yu classique la du am violence yu xaw a normal lay doon comme bien sûr ni jëkkër ak jabar di seqee mu nekk loo xamante ne lu normal la mais nag bu demee ba tàmmal ko boppam noonu dafay mel ni xel mi daf koy laaj niveau bu supérieur niveau bu supérieur niveau bu supérieur da fay dem ba day yegg sax ci ay niveau yo xamantene ne mën yu gëna ñang lay doon motax tax léegi bu fekkee ni nit dafa tam diko ko bu fateliko bi mi soog a commencé di doon yo xamantene yu moyen agressif la mais bu demee ba accro ci bien sûr xel mi daf koy laaj loo xamante ne mooy gën a metti mooy gën difficile aussi rax ci doolu aussi mën naa nekk loo xamante ne lu gën a violent lay doon. ci benn rapport boo xamante ne Ibis World moo ko def ci atum deux mille vingt et ci les États-Unis d'Amérique wax na ne industrie yi nga xamante ne ñooy liggéey ci wàllu film yu mel noonu gagné woon nañ ci lu ëpp dix milliards de dollars. ci 2021. bien sûr mu nek ay vidéo ay magazine ay site ay site web ay service de webcam en direct et aussi d'autres choses. Si ma jëlee ci ben rapport bo xamantene MC Kisney en ko def ci atum 2020. bi Amérique seulement la la wax mais wax na industrie mondiale c'est-à-dire aduna wërngal këpp buñ ko xayma ci vidéo yu mel gagné won nañ lu ëpp 97 milliards de dollars bien sûr mon nek xaalis bo xamantene na malheureusement vidéo bi dafa temps pour peut-être expliquer bu ni nit daf koy def mais mën na la peut-être trois petites solutions pour dire que vidéo bi bi ci nit ki nay moytu de benen bi ci aussi moy bu qui day gis jigen, nay moytu di c'est-à-dire jigéen bu rafet ci internet wala kii gis nga ko yemal ci li nga gis mais bu introsé sa xel ci foo xamante ni fu sori lay doon beneen bi nga xamante ne moo ci topp nag mooy suñu borom taqoo ak moom mën na la dimbale ci lu bari pour mu mun koo nit ki koy def mu mun koo moytu mu nekk ay recherche yu xóot yoo xamante ne dañ koo def ñëw ma fi nekk pour di promouvoir mais peut-être pour expliquer peut-être aussi vidéo bi mën na jariñ kenn bu fekkee da nga bëgg gën a yokk say recherche mën nga dem ci description bi bàyyil naa la fa bépp dossier boo xamante ne ak document boo xam ci laa jëlee information yi may partager ak yow. def naa benn vidéo aussi ci Corée du Nord def benen ci réew mi nga xamante ne Japon la dernière vidéo bi nga xamantene mom la après amna benen bu ci vidéo bi na la bay nga sétane ko mom ngay donc ma jox la vidéo c'était Serigne Fallou à la chambre des investigations